asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi. jotaat nañ ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yal na fi yàgg lool te ànd ko wér. jaar ci sëriñ Abo Mohamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun yàlla na ko sun borom yàggal doole ak wéram. ñëw nag ci ëttum ndigal di sëriñ Cheikh Anta Mbacke moom sëriñ Modou Rokhaya Mbacke. ndigal li mooy lan mooy bis bii nga xamante ne bii moom la ñuy waajalaat te sunu jàmbaar ja di sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké initié woon ko ci atum 1983 wax ne bëgg na at mu jotati bu ñu duggee ci njalbeenu at ma ñu dajale addiye dem jox ko ki fi nekkal Serigne Touba Xaadimu Rasuul addiye jooju nag moo dëgg malaat war a doon le 8 janvier incha allahu rabbi dëppoo ak bis bi ñuy fàttaliku di ci ñaanal Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké moo tax ñu toog fii nag ci biir kër gi jàkkaarloo ak waa fédération bi nga xam ne mooy fédération Xidmatul Xadim lëkkale mbooleem daayira yi aju ci kër Serigne Cheikh Anta Serigne Mbacké Madina mi nga xam ne moo jiite fédération bi dana yëkkati ay dana yëkkati ay kaddu moom mi secrétaire général fédération bi su noppee soxna Ndey Diop dana wax ci turu jigéen ñi di sëti maam Cheikh Anta yi di sëti Serigne Modou Mamoun yi ngir ñu woote bis boobu waaye fàttaliwaat nit ñi bisub Serigne Modou Rokhaya jàmbaar ja ñu xam nag ne Serigne bi addee ji ñor na ko lool waaye bis bi ñor na ko lool kon ñu bàyyee kaddu gi ak Serigne Mbacké Madina miy wax ci turu Serigne bi. mbokki taalibe yi taalibe yi Serigne Touba yi ak taalibe yi Darou Salaam yëpp eh, ñi ngi wax ci kaddu Serigne Cheikh mu ne mi ngi yëgle bisu addee Darou Salaam ji. ak bis bi nga xam ne euh, ci lay ñaanal sëriñ Modou Rokhaya nee na mi ngi ciy woo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp rawatina euh, ki nga xam ne mooy kilifa murid yëpp muy as Cheikh Mouhamadul Mountakha ak mboolem buntu ko sëriñ Tuubaa yi ko Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadal sëriñ Baara sëriñ Basiiru ba ci ak Cheikh Mouhamadul Mourtada sëñ sëñ Soyibu sëñ sëñ Abdou Xaadir ak sëñ Abdoul Ahad ak sëñ Abdou Borom Dër bi ak ak mbooleem buntu kër Serigne yëpp nee na mi ngi leen ciy woo nee na mi ngi woo bokki Serigne yi mu bokkal Mamor Anta Sali Cheikh Massamba waa kër waa kër waa kër borom Daaru Moxti ak waa kër Cheikh Massamba ak mboolem ñi mu bokkal kër sa kër sëñ kër moom amoon sa rawatina nag kër sëriñ Afia ñi nga xam ne ñooy ay bokki boppam ñoom ñëpp mi ngi leen ciy woo nee na tamit mi ngi woo mbaa Mbàkke ak bokk yi mu bokkal yëpp mi ngi leen ciy woo askanu Maharam yëpp mi ngi leen ciy woo nee na mboolem seex yi aju ci kër Serigne Touba Euh, muy Baye Fall yeeg saa Cheikh Issa kër Cheikh si ñoom ñëpp mu ngi leen ci woo di woo it buntu kër sëñ gaawaan yi di ko dara ci euh, waa kër sëñ waa kër sëñ Alaaji sëñ Tàkko ak kër sëñ Ibra Ndar ak kër Ibra Asucaam ba ca kër sëñ Abdou Góor ak kër sëñ Moussa Ceytu ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi nee na bëgg na ngeen euh, ànd kook moom ñu ngi ñaan suñu borom yóbbuñ ci jàmm ci barkeb Sëriñ Tuubaa daaray Daaru Salaam ji ak mboolem daara yi ko wër di ko dali mboolem biir Tuubaa gépp ak li ko wër njaareem ak li ko wër ngaay meex ak li ko wër mboolem fu daara nekk ci biir addina bi nu ngi lay ñaan nga jàpp leen ci njàngal alxuraan mi ñu fas yéene def di ko fàddiku Seex Moodu Rokhaya Mbàkke lim boo ci jàng nga fexe ba yónnee ko sëñ Mbàkke màddina mi ak Cheikh Sylla diwaan wala alaaj sëriñ Wàdd wala sëñ Galas la su ko defee ñu xam lim ba nan la toll mboolem ñi nga xam ne tey ñoom lañ bokkal liggéey bi fii ba kawlax fii ba Njaareem fii ba Ndar Euh, Thiès mbuur fu daayira nekk te bokk ci fédération bi ñoo ngi lay woo ci turu kàddu ci ndigalu sëriñ bi ñu xam ne bis boobu ñuy jublu muy le 8 janvier ñun dañoo fasoo jël aw xeer daan daan daan ci ñaari ñaari ñaari picc ndax dañuy war a joxe addiye yi naam waaye dañuy fàttaliku nag suñ jàmbaar ja nga xam ne tey lu jiin njaag te mooy njaag sëriñ Modou Rokhaya addiye yooyu moo ko moo ko moo ko yeesalaatoon ba yàlla dogal mu teg ko ci yoon ba mu agsi fii mu agsi tey jii. kàddu gi nag ñu koy jël ci turu soxna Ami Mbàkke moom sëñ Modou Rokhaya mi nga xam ne dafa waroon a teewee jotaay bi te am ngànt ñun ci turam la ñuy wax mm, di wax ci turu soxna jabaara mi nga xam ne moo kordone moo reen njaboot sëñ Modou gu jigéen gépp ndax buñ masaan teewit ñun ñoo jël seen kàddu tey biñ mënta it ñun ñoo jël seen kàddu di soññi sunu mbokk soxna yi ci biir kër gi yëpp mu ñi ma bokkal daara ji sama rakki bopp yi su ma jógee ci ñooñu nag di soññi mbokki taalu yi muy soxna yi ñu ngi soññi ñépp bàyyiwuñu kenn nañ ko daan soññee rek nga xamal ne daal sëriñ bi daal lii moom mooy bëgg-bëggam addiye ji ak màggalu sëñ Modou Rokhaya ndax bëgg na addiye ji raw na meloon daaw te damay faral di wax ne lépp lu ñuy woote soxna yi jàmbaar lañ ciy doon duñ ci des ginnaaw kon nag soxna yi maa ngi leen di soññ bu leen des ginnaaw ci addu yi waaye bu leen des ginnaaw ci waañ wi waaye bu leen des ginnaaw ci màggal gi. jërëjëf mbokk yi kàddu yaa ngi noonu di wooteeb soññee addiyee daaru salaam gi nga xam ne le 8 janvier lay doon incha allahu rabbi waaye màggalu sëriñ Modou Rokhaya gi nga xam ne ci turu Serigne Modou Rokhaya Dioum mboolem turandooy Serigne Modou Rokhaya ñi ngi leen di soññ di leen xam ne dañ cee amub taxawaay bu rëy ñoom ñëpp nag sëñ Modou Rokhaya Dioum nee na leen di soññ ci liggéey boobu ne seen liggéeyu bopp la kon bis baa ngi noonu màggalug bëccëg lay doon Serigne Cheikh Anta nee na dañuy xëye jàng alxuraan xëye jàng ay xasida ak salaatu ala nabi def ay bernde waaye bu ñu demee ba julli timis nag ci la ñu yeewi mbooloo mi waxtaan wi ginnaaw tàkkusaan lay doon kon Serigne bi nee na mi ngi ciy séentu ñëpp nag di ñaan képp ku teew Daaru Salaam yàlla yàlla faj say aajo far say bakkaar wasalaamu aleykum aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.